jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi dellu am mbégte dellu si waat euh, ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck comme ni ñu koy defee samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mamadou Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu euh, invité Serigne Mbacké Ndiaye ancien ministre. mu nekk secretaire général de la convergence libérale libérale patriotique CLP. Euh, moom la ñu invité tey ci seen émission euh, pencum euh, réew mi monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu sénégalais yi nga xam ñu ñuy déglu lépp ci biir réew mi ak ci bitim réew di rafetlu liggéey bi parce que souvent dana ñuy déglu émission bi muy noo nga xam lu am solo la ci réew mi ak ci askan wi. di ñaan yàlla it ni ma koy waxee toujours rek kàddu gu ñu fi génnee yàlla nay lu jariñ askan wi ku ci dégloo naqari nga jéggal ñu ko ndax du woon suñu yéene. Euh, monsieur le ministre waxtaan bi dañu koy commencé ci li nga xamante ni moom mooy euh, coronavirus bi euh, démb gis nañ ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ëmb lépp lu jëm ci wàllum saytu coronavirus bi ñoom nee nañu coronavirus bi fi mu ne nii dafa gën a yokk ci Sénégal dafa multiplier wu sax par neuf la ñu wax ginnaaw tabaski bi ñi koy am bëri na cas grave yi bëri na ñi si faatu tamit bëri na. Euh, fi mu ne nii toll ñu baree bari ay solution la ñuy wut yow lan moo ci sa xalaat. waaw solution bi de mooy d'abord bu ñu gi seetloo ni corona bi ak nu ñu ko waxee troisième vague ci yenn réew yi sax nekk ci quatrième vague euh, du sax Sénégal rek xëy na nag du man dong bokkuma cee gën waaye nag yàlla dogal na monde entier moo demee noonu ñi nga xam ñi ngi seetaan fi mu nekk Jeux olympiques yi am fële ci Japon gis nañu ni Jeux olympiques yi à huis lañ koy def. boo demee ay réew yu mel ni États-Unis fu mel ni France fu mel ni Espagne ñii ñi ngi nekkaat ci confinement tëju. ñi ay pass sanitaire ay wala ñi def ay te xëy na li olof di wax naan suñu sibat dafa màndiwuluk séq mhm. waaye pass sanitaire boobu. loolu mooy lan. Euh, waaw li loolu mooy. <laughs> loolu mooy léeg da ngay wax dara mu mel ni dañuy xeeb say wax. Euh, ñeneen wax ko ñu jëfe ko wala dañ koy xeeb dem ba jëm jamono ñu ne lii kat moo fi sës. Mhm. ndax li ñu tudde pass sanitaire. boo déglu boo laajoon tey président Macky Sall dina la wax ni wax naa ko yow plus de deux mois. bind ah naa ko yokk jox ko ko Abdoulaye Diouf Sarr boo ko laajoon dina la wax ne wax naa ko plus de deux mois. kon boobu sax France defagu ko. déedéet boobu defaguñ ko sax dama tëdd ba guddi may xalaat ba yàgg ma ni man daal vaccin yi ñuy wax kenn mënul forcer nit muy dem di vacciné wu waaye am na lu état man bu ñu seetee li ñu gën a bëgg mooy làmb ci ñu ni terewuñu làmb waaye bala nga fay dugg di nga vacciné wu di nga masque yu nga stade ba ñuy footballé surtout nawetaan yaa ngi ñëw ñu ne bala nga fay dugg di nga vacciné wu di nga euh, di nga masqué wu di yor sa gel bala ngay dugg restaurant def ko bala ngay dugg boîte de nuit def ko bala ngay dugg ko bala ngay dugg ci bus def ko. wala bala ngay boo ko defee bu ñu ko defee rek nit ñi bu ñu amee soxla dana dem vacciné jamono yooyu it kilifa yi ma ko doon waxal nangu nañu sax lu war a nekk la waaye xëy na li manqué woon loolu bala nga koy mën a def dangay am vaccin yu doy. ba nga xam ne fu nit taxaw mën a vacciné wu donc loolu mooy li nga xamoo nekkoon gàllankoor bi mais dem nañu ba tey jàpp naa ni fokk ñu egg ci loolu li ci am solo nag mooy kenn ku nekk xam ni affaire mbas mi du politique du syndicat du tarixa du diine lu mu doon mooy kenn ku nekk yaa war a jéem a aar sa bopp waaye nag jaaduwul yow nga aar sa bopp ba di gëm loo nit ñi ne lii du lii du dara alors di fexe ba nit ñi naan woy vaccin yi baaxul vaccin am na risque nangam a nangam te ña ko doon wax ñëpp. Mhm, tey ña nga dem di vacciné wu. Mhm. rafetlu taxawaayu kilifa diine yi. Mhm. tàmbalee ci église catholique nga gis taxawaay bu am solo biñ ci am boo gisee ku mel ni sëñ Mbaye Sy ba affaire bi tàmbali lay amul foo koy gis te du bas kon kooku joxe na exemple boo jëlee sëñ Mountakha Bassirou kenn du ko gis te masque wul amul guddeeg bëccëg ak taxawaay bi mu ci am génne alalam def ci ba fi mu ne sax muy woote bis boo nga bisu xasaay la di bëgg ñu ñaan ndax yàlla dimbali ñu mbas bi jóge fi kon li nga xam ne mooy tey li war a am mooy mbii coog mbàlloo kii moo def lii kii moo def lee amul solo am réew bu tolloo ci xeex ku am fetal génneel ku am jaasi génneel ku amul yat génneel ku mënul sax da tëdd fa nga tëdd te naan gaa ñi waaw leen góor foofu la réew mi toll bu ñu ko defee danañu am ndam buñ ko deful aussi ay problème ñu indil te man awma dut ci ni lii lu mu metti metti Sénégal dana ci génn ak ndam. d'accord léegi euh, monsieur le ministre euh, am na loo xamante am na loo xamante ni peut-être tey euh, ni nga ko waxee nii mooy. yàgg nga proposé li nga xamante ni tey mooy pass sanitaire bi xam naa ne moom bis bu Sénégal yi xamee ne que ne yow yaa def proposition boobu est-ce que xalaatoo tamit ñun ñu dal ci sa kaw ak bi nga defee proposition bi lan moo nekkoon tontu njiitu réew mi. waaw man de xaw ma ne sama kaw te ku dugg sama page Facebook di ko gis loolu yàgg na ku dugg sama page Facebook di nga gis moo proposé ko bu yàgg loolu amul problème li ci wax naa la li nga xam mooy réaction wu autorité également mooy loolu jaar na lu war a mën nekk la mais li doon gàllankoor bi mooy ñàkk yi moo doyagul woon. kon jàpp nga bu doyee ñu def ko. ah moom laa gëm bu doyee ñu def ko parce que amuñu beneen solution xam nga nit ki mënu ko forcer ni ko tey gi dem ñàkku waaye man nga ni ko bala ngay dugg fii da ngay wane lu war lu tax nga ñàkku te gis nga nag sénégalais yi dafa ñu de. tey foo dem foo fekk fu ñuy vacciné woo nit ñaa ngi fa del ak fu ñuy defee test. ñi bëgg tukki ñëpp ña ngay dem di vacciné wu ñu parce que xam nañ ni boobu di bëggee dugg avion ñun la ana sa carte de vaccination réew ma nga jëm boo fa nit ñëpp ñun la te loolu dafa am lu ko war a que nit ki kenn wur ko gën a bëgg njariñu boppam. Côte d'Ivoire instant bi Côte d'Ivoire passe passe wala Tunisie il yor carnet de vaccination. mais c'est normal nit ku bopp fi mu nekk loolu il faut que nit ñi kenn ku ne. jël sa matukaayu bopp fàtte suñu bopp li tax may wax fàtte suñu bopp gis nañu léeg-léeg koo nga xam ne da nga nekk ci mel ni ku ne ci corps médical bi mbaa nga jege leen def sorti attaqué liggéey bi ñuy def te jaaduwul egg nekkuñu foofu te kenn ku ci nekk bu jógee tey di attaqué liggéey bi nga xam moom la ñuy def xam nañu lu di ko def. d'accord léegi léegi monsieur le ministre foofu la ñuy rebondir rek euh, pour bañ koo fàtte. Mhm. Euh, moom mooy corps médical boobu ngay wax euh, am na si ñenn ñoo xam ne dañuy jóg wax ne ñàkkooguñu te nekk ci ay kàngam. ku si mel ni docteur Babacar Niang xam nga loolu tey dafay indi jeexi jaaxa ci xelu senegal yi dañuy wax ne ku mel ni docteur Babacar Niang nan la mën a taxawee ci télé Sénégal yi di ko seetaan mu ne man ma beneen bi tamit dañuy faral di gis mu yëkkati ay tuuma teg ko ci ñi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi loolu tamit ci jamonoy xeex mbas ak mbir mi ni mu doyee waar nii yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. waaw xam nga man li ma ci xam lépp sax du ma ko wax parce que nit du wax di weddi boppam dama wax léegi ni jamono juñ toll na ñëpp mobiliser wu pour que mbir mi ñu mën a xeex ak moom mais boo seetloo dëgg dëgg dëgg mbir mi ma tàmbaleeg ba léegi ñaari nit ci corps médical ñoo nga xam bokk nañ ci du ma tudd turu kenn nag juñu doy na borom xel. ñaari nit ngay dégg ñu nga xam ni ñooy diingat li nga xam moo fi am kenn ki bi affaire bi commencé nee na nañu ko jox transportu tous les malades monopole bi maanaam fu nit feebaree ndax am na ay oto mën leen transporter boppam état bi xamagul ko loolu mënta nekk parce que hôpitaux yi dañu am seeni euh, ambulance médicalisée maanaam bu ñu demee nag ba egg foo nga xam ne suñuy ambulance mënatu leen di jël bu boobaa ñu mën a wuti ñeneen kooku looluy problème keneen ki ci des dañ ko dénkoon programme boo nga xam ne programme ministère de la santé la programme état du Sénégal la ñu dénk ko ko mu luubal xaalis ba ay inspecteurs généraux d'état dem fa di inspecte ba gis loolu ñu jàpp ko mu fay xam nga li olof naan ku sa gémmiñ di nàcc du wax jàmm xam nga loolu tey mënoon naa ni diw ak diw la ñi nekk ci corps médical bi xam nañ ni diw ak diw la mais comme day yàq. du lu ñuy wax mais këpp dama bëgg rek li tax ma di ko wax nii ñoom ñu xam ne ñun xam nañu te li ñu ñor tey li ñu intéressé mooy ne ñëpp mobiliser wu xeex lii nga xam ne ci la ñu nekk tey du ministre de la santé du président de la République du keneen ak keneen parce que bu doon fajoo wala am moyen yow fajoo mën a protéger sa bopp mooy tax kon xëy na kilifa yii ñuy wax muy ministre de la santé muy président la muy ñu mel ni ñoom xëy na ñoom lay mujj a dal. kon yow détournement yi ñuy wax nii ci euh, matériel euh, médical bi yow gëmuloo ko. mais c'est pas vrai loolu ku nekk xam nañ du dëgg même ku teewul boo boo suivre rek à partir de la presse waxuma sax man a information bi am mais koo nga xam ne ci presse bi dong ngay dégloo. dégg ñi nga xam ne ñoo koy wax ak réponse yi ñuy indi ñoom nga xam ne loolu dara taxawu ci puis même bu doon dëgg encore une fois même bu doon dëgg yow nga nekk ci corps médical mu nga gis loo nga xam ne lu mel noonu la am na foo ko war a mën a waxee boo bañ a yàq réew bu doon dëgg laa wax rawatin bu dul dëgg donc jaaduwul rafetul am na lu nga xam Sénégal dong la ko nit ñemee def ba pare dem fanaani sa kër Sénégal dong am man de dama koy wax hut sama baat ca kaw am na loo nga xam su ma nekkoon man ministre de l'intérieur ci réew mi wala ma nekk procureur ci réew mi boo ko nit waxee jëmale ko ci réew mi doo faram sa kër booy bu mu kuti ba lu mu mënti kuti nag mais man loolu laa jàpp ni mooy responsabilité mënoo fekk am réew moo nga xam ne dañuy liggéey di xeex guddeeg bëccëg suba ngoon personnelu santé bala nga ko xam nga am ci mbokk boo ci amoon xarit wala nga am ci jëkkër wul nga am ci jabar ay weeri weeri weer du ñu nelaw guddeeg bëccëg suba ngoon lu nekk ñu di ko daj yow nga toog fa pour des intérêts personnels bu ñu liggéeyee liggéey liggéey ba defe ne affaire bi sotti na nga wax loo nga xam day taal ab dëkk je pense que loolu ku ko def mérité warul sax fanaan sa kër kaso ba nga war a fanaane kon yow da nga jàpp ne euh, Abdoulaye Diouf Sarr mbir mii nga xamante nañ koo tuumaal euh, ministère de la santé daf ko war a topp ba ba mu sës. mais loolu mooy même ki ko wax men ki ko wax intérêt mooy ñëw topp ko parce que li mu wax bu dee dëgg la moom bu dee am na ci firnde waru wax dara bàyyi mu am jeexi jaaxa ci xelu askan bi soo waxee dara da war a nangu. dem fa mbaxare dooni benn nga ne lii ma wax kat lii ak lii ak di firnde yaa ngi nii mais doo wax dara ba pare ñu laaj euh, nit nga naan ki nga ki nga ne woon moo indi produit bi kooku nee na man jëndewuma produit bi Sénégal Chine laa ko jënde ou bien nga naan dégg naa keroog ma jàmbal doon na wax nu mel nangam dégg naa diw di ma kilifa du wax ci lu mel noonu man loo ma laaj su ma xamul dama ne la xaw ma. d'accord mais ñuy wax euh, naan euh, corona business corona deal loolu tamit yow lan moo ci sa xalaat. mais mooy li ma la wax rek mooy waxu yàq rek parce que corona business mooy lan fu ñu leeral ñu ko corona deal mooy lan xam nga li olof naan boo nee mbaam mi dee na mbaam mi dee na da ngay wax ne mbaam mi tool baay diw la deewee loolu mooy su fekkee ni jàpp nga ne dafa am deal war nga mën ni deal bi kat Serigne Mbacke Ndiaye mii moom la ñu jox produit bu waroon jar par exemple mille francs jaayee na ko ministère bi 2000 francs Abdou Khadir mii lii nga xam ne waroon na jar nangam jaay na ko nangam wala jox nañ ko lii wu mu waroon ko fournir fournir ko loolu muy dil mais taxaw di yàq xelu askan bi nan deal ak ay business yu kenn xamul te mënoo ci jox benn firnde loolu moo tax man la man su ma doon procureur wala ministre de l'intérieur ku ko wax dinaa la woo nga jox ma firnde wala nga fanaani kaso. Ah, d'accord léegi euh, monsieur le ministre euh, gis nañ ne fi mu ne nii moom ñiy dee ci coronavirus bi euh, dafa bëri lool dafa bëri trop maanaam néewaa na koy waxal koo xamante ni amul benn mbokkam wala ay mbokkam yu baree bare yoo xamante ni faatu na ci tey loolu yow nan nga jàpp ne buñ ko defoon tey saafara saafara dina ci am. mais saafara bi amul ñaar amul ñett mooy li ñu santaan dañ ko def benn nañ ñàkku ji ñaareel ba li ñu wax ne nañu respecté masque yi sorianto mais mais est-ce que jàpp mu dem ba jéggi dayoo. mais ñaanuñu ko yàlla mais ñu ngi def lépp pour mu bañ a jéggi dayoo pour mu bañ a digg jéggi dayoo man la yow la keneen la keneen la kenn ku nekk boo defee li nga war a def mais yàlla mën na la ci dañ ne la demal ñàkku nga ñàkku dañ la takkal masque nga takk masque sorianto leen ngeen sorianto raxasal sa loxo nga raxas sa loxo. loolu boo ko defee ba pare nag ah li ci des nga bàyyi ko ci loxo yàlla te nag sama bopp la gënal du bañ naa la boo toogee ni ah diw kër am na mu tudd mu rus naa caa bañ a dem dem fa yenoo fa jàngoro indi ko sa biir kër ah diw génn àdduna rus naa fa bañ dem nga dem fa jëlee fa jàngoro yóbbu ko sa biir kër wala nit tas ak yow nga ni rus naa ko mu tàllal la loxo nga ni rus naa ko bañ a nuyu nga tàllal ko loxo jaaduwul donc kenn ku nekk da ngay tàmm d'abord da ngay tàmm li sàmm sa bopp soo protégé sa bopp rek am naa yaakaar ni yàlla mën nañu musal. d'accord léegi euh, monsieur le ministre mais communication bi nga xam ne moom la ministère euh, de la santé euh, di def ndax loo mën di gis tamit communication bu jaar yoon daf cee baax mais est-ce que ministère de la santé. lajjul ci début bi ci ci ni mu waroon a communiquer dëgg-dëgg ak sénégalais yi même bu dee ci vaccin bi avant vaccin bi ñëw mënoon nañoo jël ñi nga xamante ni tey gis nañ ne euh, communication communautaire moo xam ñi nekk si jumaa yi la wala ASC yi la wala daayira yi la ñu communiquer ci vaccin bi bien avant si côté communication ministère de la santé ci ni mu yoree coronavirus bi yow ndax jàppoo ne am na rëq-rëq. waaw mën na am mu am rëq-rëq je dis bien mën na am waaye rëq-rëq bi ko bi ci jëkk mi ngi jóge ci yéen presse bi xam nga lu tax jaaduwul. ñu war a wax ci vaccin ñu woo ma man di ma laaj loo xalaat ci vaccin bi lu ma ci xam man bi may dem di vacciné wu docteur Diop man koy gërëm muy vraiment personnel bu disponible ñoo nekk Philippe Maguilène Senghor bi ma ñëwee ñu ne ma ban vaccin nga choisir dama ne man xàmmeewuma paracétamol ak Nivaquine su ma feebaree dem hôpital damay tëdd médecin bi moo lay cause bind ordinance bi mu jàpp ni moo lay faj te doo ko ni bindal ma bii mmh. pourquoi vaccin ñëw ngeen jël seen micro ay musicien woo ay lamb waa lamb ji woo ko mel ni man ay politicien naan leen waaw euh, AstraZeneca xaw ma lan seen forma lu ngeen ci xam ñii naan baax na ñii naan baaxul jaxase xelu askan wi loolu mooy bu amee rëq-rëq bu njëkk nañu nangu ni ñun en tant que population yéen en tant que presse rëq-rëq bu jëkk bii yéen a ko. waaw léegi bi fësal ñenn ñi nga xamante ni tey ñoo nekk di di indi ay désinformation wala jeexi jaaxa xelu sénégal yi presse bi interviewé ñu mel noonu nag wala di fësal seen i ñoo ñu ñoom lan moo ci seen responsabilité. ak fi mbas mi toll. mais mooy li may wax nii justement loolu moo jaaduwul parce que gis ga dama la jox benn exemple mosuloo gis xeex am guerre am solda américain ñu dóor ko bal mu daanu média américain di ko wane mosoo ko gis ci àddina loolu am. bu ñu leen dóoree bal sax américain dem nañ ba tàyyi ci ay dëkk ñu duma leen fa duma yoo nga xam ne du ñu yóbbu seen dàll bu ñu ñibbi mais seen i média duñ ko jël di ko def ngóora di ko wane. mais média yi war nañu wane dëgg tamit. non attends wane dëgg xam nga dëgg mooy lan kenn ku nekk am na dëgg goo xam nga noo koy wane ak noo ko dul wane damay jox beneen exemple doo gis benn vedette américaine nay musicien nay sportif nay lu mënti doon. mu yor drapeau ab euh, beneen réew doo ko mës gis ci àddina c'est ça le patriotisme foofu lay tàmbalee. d'accord mais nee nga presse bi euh, mais bu dee ministère de de la euh, de la santé lan moo ci rëq-rëq yi. voilà dama ne dama ne mën na am rëq-rëq foofu mais bi ci jëkk ñun la population presse bi la ministère de la santé lan nañ ko mën a rëpp pour être honnête parce que li muy def ñii bu ko deful woon maanaam tàmbali doon def chaque jour ñu ne nangami kaa am na fii ak fii la amee nii ak nii bu ñu ko deful woon xam nga luy xew. bis bu yàlla sàkk ñun la junni dee na Touba junni dee na Tivaouane diw dee na fële fële mu topp di weddi donc le fait que ñuy def chaque jour. point Covid ñu joxe point Covid bi je pense que c'est extrêmement important leneen li ci des tàmbali woon nañ ko ñoom mu am lu ci des mooy relais communautaire yi nga wax nii. loolu jàpp naa ne xay na fañ ci waroon egg ak relais communautaire yi am na lu bëri bëri bëri lu nga xam des na ci mais en dehors de loolu. gëmuma ni am na loo nga xam nga war nañ ko mën a reproche la santé au niveau de la communication. waaw mais xam nga euh, monsieur le ministre tey su doon ministère de la santé Abdoulaye Diouf saar dem na ci benn localité wala mu yónnee fay ay ñu recensé chef de quartier yi recensé imam yi nga xamante ni ñoo fa nekk ak euh, jigéen ñi nga xamante ni tey ñoo jiite ay mbootaay ak ñi nga xam ne ñoo jiite tey euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci nawetaan yi ci ci lu mel noonu ñooñu bu leen ministre bi woon waxtaan ak ñoom. ak est ñi nga xamante ni tey ay médecin lañ ay CD yooyu expliquer imam yi carrément lan moo nekk ci vaccin bi lan moo nekk ci feebar bi imam yooyu dana ñu mën a dem ci seen jumaa ak seen jàkk yi di ko fa wax mbootaay yeeg ñu di ko fa wax mais ñooñu tamit il faut nga boole leen ci monsieur le ministre tamit gisuma ne boole nañ leen seen Abdou Khadre déglu dama wax Sénégalu 2021 bii ni muy doxee ci wàllu information mënul doon Sénégalu 1974 lii nga wax valable woon na 1974 mais valable 2021 lu voilà très bien amul benn sénégalais bu nekk ci réew mi fii ba Fongolimi fii ba maatam fii bu fedd ci àddina amul benn sénégalais buy dox te xamul benn ni mbas mi am na amul ku ko amul ku ko xamul ñaareel ba amul ku xamul ni vaccin la santaane amul ku xamul ni sant nañu doomu aadama yi boo vacciné wu ba pare na ngay takk masque na ngay raxas say loxo wula na ngay gel wula na nga jeg sorewante ak sa moroom lu mu gàtt gàtt mètre ak lu teg loolu ñëpp xam nañ ko donc lan moo des ci communication bi. daa ko mais xam nga tey yow par exemple tey yow euh, monsieur le ministre bu ñu la boolewul sax ci communication bi yow fa nga war a communiquer. mën nga see communiquer sa page Facebook naam boo boolewuñ la si. Mhm. mais am na ñoo xam ne boo leen boolewul ci mbir nag dañuy toog ci bi dañuy toog. loolu laa côté boobu laay waxee. mais loolu loolu fotukan la parce que am réew tey bu ñu toogee asamaan si di taw kenn du xaar la jugal fatu bu ak lakk ñëwee ci dëkk kenn du xaar ku ne sa kër a ngi lakk bu ab sàcc duggee ci dëkk kenn du xaar ku ne sàcc baa ngi nii kenn ku nekk da ngay jóg def ci li nga ci war a def donc bu fekkoon ni tey sénégalais yëguñu ni mbas mi am na ñu ne am ah ministère deful li nga war a def bu ñu yëgul ni vaccination am na ñu ne ministère deful li nga war a def bu ñu yëgul les gestes barrières ñu ne ministère deful li ñu war a def mais loolu ñëpp xam nañ ko maintenant ki ko xam ba pare taxaw ni la gëmuma ko te kala naan gëmuma ko moo la ko gën a gëm. moo la ko gën a gëm parce que boo ko ne kii dafa am mbas mi mu daw boo leen ne kër gii am na ko fi am mbas ñu fi dugg xam nga lu tax ñu wax loolu doomu aadama moo bëgg psychologiquement mooy bëgg dégg lu ko neex doomu aadama mooy bëgg la mu nekk ñu jàppale ko ci mi ngi mel mi ngi mel ni tey bu ñu nee mi ngi taw ma ne la Abdou Khadre kaay gunge ma nga ne ma eh grand bi ngi taw de damay génn tàll sama loxo ne la non tuuti la pourtant xam naa taw bi bari na dama pourtant day wis rek nañ dem doomu aadama moo bindoo noonu. mais amul kenn kuy dox ci Sénégal tey ku xamul ni mbas mi am na te xamul luy dindi mbas mi. léegi dafa am ci ñenn ci opposition bi ñoom euh, Abdoul mbay ak Thierno Alassane Sall ak Mamadou Lamine Diallo ñoom dañuy sàkku. Abdoulaye Diouf Sall tekk ndombal tànkam ndax dañoo jàpp ne euh, dafa tële ci ni mu yoree mbas mi yow lan moo ci sa xalaat. ñooñu nag amuñu solo su war a tax may wax ci ñoom. franchement mais lan moo tax monsieur que ah, ay lay wax mais ancien premier ministre. ma ne nga wax naa ko keroog ci benn émission. maa doon nangam amul solo xam nga li am solo bañ la ko joxe loo fa def yow am na ñoo nga xam ni buñ non franchement na jàll ci leen. amuñu solo bu war a tax ñuy wax ci ñoom. parce que xam nga nit ki fan ngay amee solo bu fekkee ni jamono bi nga nekkee ci biir état am nga taxawaay bu tax Sénégal yi naw la nga génn ci état ci sa coobare bopp damay joxe benn exemple ku mel ni mali Gakou defe naa ni su ma juumul c'est un des rares ministres yu ma sa toog di d'accord ma ci li ñuy def dem naa sama yoon quitté le gouvernement à l'époque ci coobare boppam dàquñu ko de dafa démissionné kooku bu toogee di ma wax dinaa ko dégg. Thierno Alassane Sall aussi daa mel loolu la. bon. Euh, léegi li nga xamante ni tey euh, moom mooy 1000 milliards yi tamit xaalis bi ñu doon wax fonds force Covid 19 euh, rapport bi génn na. bi rapport bi génnee euh, ñun fii ci réew Rewmi FM jokkoon nañ si ak ki nekk porte parole euh, fonds force Covid 19 bi di Ndaw euh, Momar Ndaw mais nee na ñoom bi seen rapport gis nañ ni am na xaalis bi ñu ko jëfandikoo noo xam ne waruñu woon koo jëfandikoo noonu nee na am na ministère yoo xam ne waroon nañoo mën a yaxanal xaalis bi te yaxanaluñu loolu nga xamante ne moom mooy moom mooy xaalis bi loolu tamit ci rapport bi yow lan moo ci sa xalaat. d'abord sargal leen ñoom ñoom ñi génne loolu. sargal président de la république bi nga xam ni moo teg ay ay ay ay structure yoo nga xam ni tax na ba parce que mënoon nañu ko doxale neneen naa kenn doo xam na mu deme donc bu dee ni fexe dañ ba transparence boobu am ci loolu dama leen ci sargal ñoom li ci des mooy kilifa ku ci mënti doon ci kaw ba ci suuf ku ci def loo warul def ñu teg la ci yoon ñaareel ba tenir compte parce que loo xam ne tey nga ko jëkk def lu mel ni tey la ba sa am Sénégal ëllëg bu ñu ko doon defaat jàpp naa ne am na ay modification war nañ ko ci def dama la jox exemple xam nga dañu jënd ceeb di ko joxe man jàpp naa ne bu ñu ko doon defaat yàlla bu ñu ca egg waaye bu ñu ko doon defaat tey. Mhm. li ma jàpp ni mooy gën. Mhm. département bu nekk ñu ni préfet bi créé comité préfet créé comité bi commerçant ya nekk ci biir département boobu ceeb bi ñuy jënd Dakar ñu jënd ko ci ñoom ñu distribué ko ci population bi mooy gën a gaaw. ten tora kenn ku nekk comme ni ko Momar Ndao di waxee ku ne mos. te du am transport bi aussi xaalisu yëpp jàpp naa ni buñ ko doon defaat tey war nañ ko mën a. defee noonu xaalis transport xam nga lu tax loolu. bëggu nañu kenn ku nekk li ci di sa wàll nga am parce que boo joxee population bi rek te transport bi amul transporteur bi laalu ci. te mbas bi daf ko impacté. booy demee ci transport bi également même kay yanu saako yi di ko dugal ñu di ko fay Afrique daf ko impacté. mais loolu dama ne war nañ ko mën a décentraliser yóbbu ko au niveau des départements bu ko defee département yi gis ci seen bopp transport yi nekk transporteurs yi nekk ci département yi gis seen bopp commercant yi gis ci seen bopp ainsi de suite loolu laa yaakaar ñu ko doon yàlla bu mu am nag mais bu doon amati jàpp naa ne lu mel noonu war nañ ko mën a pour que kenn ku nekk mën ci gis sa bopp. d' accord léegi euh, monsieur le ministre euh, suñu dernier laaj ci li nga xam ne mooy coronavirus bi dafa am euh, ñenn ci opposition bi ak société civile bi dañoo tuumaal ki nga xam ne mooy président Macky Sall ne moom moo indi li nga xam ne mooy ñetteelu vague bi ndax moom mooy moo fi ñëw euh, wër Sénégal bi mu paree ci la corona bi yokk de euh, Ousmane Sonko tamit nee na président Macky Sall mooy ki nga xam ne mooy am ay information moom la ñuy jox ay bulletin bis bu yàlla sàkk di ko jox fi réew mi toll xeet yooyu moom mi ñu jox nag ay xibaar moom moo war réew mi euh, moo fi indi li nga xam ne mooy ñetteelu vague bi wax na loolu am na ñeneen tamit ñu ko wax yow lan moo ci sa tontu. Ah, xam nga loolu même yow mi koy laaj xam nga ni waxu Balla Pouye la nañ benn troisième vague bi amee moo nekk partout dans le monde loolu du lu kenn di werante te Sénégal du réew moo nga xam ni moom dong day dox bokkul ak beneen réew ci àddina muy benn ñaareel ba jamono ji président Macky Sall di def tournée ci biir réew mi mais ñoom opposition bi ñu ngi doon def ay manifestation fii ci biir Dakar te fa Macky Sall dem amul corona bi amu fa mbaa boog amewu fa ni mu amee Dakar ñoom Dakar gii ñu nekkoon def ay manifestation fi bi am kon kay ñoom ñoom la ñu waroon kenn tuumaalu leen ñu bëgg a wëlbatiku di pré je pense que xam nga nit boo doonee kilifa mbaa boog nga bëgg doon kilifa wala bëgg soo waxee nit ñu nawloo la da wax waxu kilifa mais sincèrement kañ ko dee si biir sax nga ni Macky Sall tax kañ gi dee. mais nag mais nag euh, responsabilité président Macky Sall la woon moom mu tere boo bëggee def fi manifestation si Dakar mhm. président Macky moo am sañ-sañ tere. moom amuñu sañ-sañ tere ko ndax moom mënoon naa tere opposition bi ba pare bañ koo def mais moom bu terewul opposition bi te war a tere ndax moom lañ dénk mbir mi da ci am responsabilité. mais yow gis nga fi gis nga fi manifestation tout ay coow. ne par force te pour d'abord ba préfet wax na ko Covid bi. mais encore mooy. mais na préfet jël responsabilité ah, jël na ko gaa jël na ko mais dama ne question bi mooy. question bi nga posé woon mooy moom moo yóbbu corona bi ci biir réew mi. waaw or or fa mu dem amu fa. fi mu demul la am. fi mu demul ñoom ñoo fi nekkoon di def seen seen manifestation. fii la amee. kon ñoom bu ñu leen tuumaal bu ñu tuumaal xam nga loolu du ay affaire par parloo du ay affaire kii nga faral ak kële nga faral mooy loo nga xam ne ñëpp dañ ci teg seen bët di ko gis waaw mais li ma bëgg wax mooy opposition bi même bu doon amuñu sañ-sañu def manifestation mhm. foofu si jamono fi réew mi tolloon mhm. mais président Macky Sall dañu waroon a jël ay mesures tere leen ko même moom bañ ko xam nga yow sa doom boo ko terewul lu mu mën a def rek sa responsabilité la d'accord ndax Macky Sall lañ dénk moom pour mu euh, xam ne ñoo yëngatu ci wàllum politique opposition boobu ñooñu minorité lañ mhm. léegi nag leen ñi nga xamante ne ñooy askan wi ma war leen a war leen a sàmm war leen a aar est-ce que dafa war a bàyyi am minorité bu ndaw di def ay manifestation ba ba mbas mi gën a yokk non d'accord na ak yow loolu état euh, dafa am li ñuy wax puissance dafa am doole mm-hmm. joo nga xam ne ak lu mën di xew bu ni lii mooy am ci intérêt askan wi lu mu ko jaral lu mu leen jaral na la ko jaral. Mm-hmm. il est bu ñu ko defoon it xam nga coow li muy indi na ko. jar na ko parce que boobu danañ ni voilà ma nee di def ay tournem ci biir bi ñun mu di ñu tere alors que xam nga wax nga léegi Ousmane Sonko nee na information yi muy am c'est vrai un président information yi am kenn du ko am mais bu sukkandiku woon ci information yooyu def moom ay tournée parce que xam na ne amuloon benn risque à l'intérieur du pays tere ko fii à Dakar yow mii ma jàkkaarloo yaa may jëkk ni démocratie lañ nekk constitution bi moo wax ni am nañ droit si ceci la mais d'accord na malgré loolu lépp état bi dafa war a jël responsabilité bi bu lii am ak lu muy mënti coûter bu mu bàyyi mu am su waree am na ko bàyyi mu am donc bu fekkee ne am nañu information comme quoi mbas mi ngi doon dox ci biir dakaar te bu ñu fi defee autorisé à manifester dafa koy yokk dañ ko waroon tere loolu muy dëgg loolu d'accord naa ci ak yow donc ci côté boobu état bi deful li mu war a def. d'accord léegi euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre kon yow Diouf Sarr jàpp nga ne lajjut dafa am ñuy wax ne dafa lajj ci mbir mi. non sore naa ko lajj na yéen tamit parce que le monde entier reconnaître nañu liggéey bi nga xam moom lay def muy première vague muy deuxième vague bi. boolewu ko coow boolewu ko dara parce que bu doon keneen la chaque jour nga dégg ko ci rajo ak télé yi. mais ma ngi porte plainte. loolu c'est normal parce que plainte boobu moom laa wax sànq ki ko ki wax wax ji sax moo waroon a gën a bëgg ñu porte ko plainte. parce que am loo nga xam ne wax ju rëy joo soo ko waxee ci am réew war nga ko mën a leeral bu toogoon bañ a porte plainte ñu ni kon dëgg la kon dëgg la li tax ñu wax ko te tontuwuñ ci dëgg la te taxaw ni dudd gi rek doyul dégg naa sax ku benn kilifa gu doon wax naan oui mënoon nañ wax rek ni affaire bi amul ñu yemale non doyul. parce que bu ñu noon affaire bi amul it ñii ni am na ñii ni am kon nañu dem fa waxane doone men ki ni wax ki wax wax ji indi ay firndeem teg ko ñu xam ne li mu wax dëgg la indiwul ay firndeem ñu teg ko ci yoon. c'est aussi simple que mais très franchement Abdoulaye Diouf Sarr ku ko félicité wul da nga ko war a bàyyi may ko jàmm. d' accord euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, Serigne Mbacke Ndiaye mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi moom nag mooy secretaire général de la convergence libérale patriotique CLP et patriotique CLP mais il fait CLP nag monsieur le ministre il faut ñëw surtout si élection locale yi mais nag fi ñu commencé mooy mbindu mi mbindu mi yow ubbeeku na mais yow lan moo ci sa xalaat ci ci ubbi bi beneen bi mooy li si gën a doy ak nit ñu di ko wax mooy primo votant yi ñi nga xamante ni tey mosuñu am carte d'identité euh, opposition bi tamit dañoo bëggoon li nga xamante ni tey mooy récépissé yi ñu man see inscrire loolu nag décret présidentiel bi nanguwul ñu inscrire ci récépissé yi euh, ñenn ci opposition bi tamit jàpp nañ ne euh, ñi ñu si jot a jël fii président dafa bëgg gàllankoor ndaw ñi pour ñu nekk ci liste yow lan mooy ci sa d'abord loolu la ñu war a jëkk évacuer parce que ndaw ñi wax kenn xamul ku ñu faral ñii ngi faral Jean ñii faral Paul ñii faral Masamba ñii faral Mademba loolu bëgg a wax ne ndaw ñi loolu naa féq la au départ ñaareel ba gis nga jàngul tari leneen la wax lu dul dëkk dañu am affaire ak ñenn ci opposé ñoo nga xam amuñu maturité xamuñu luy politique xamuñu fu ñu jaar Sénégal bu egsi fii ñu egsi bi maître Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wérgu yaram suñu bàyyi bu baax bi ba muy créer PDS en 1974 dafa am lu ñu fi fekkoon loola mooy nit ki buy ñëw di wote kenn du ko identifier kenn du xam kii Masamba la wala Mademba góor la wala jigéen la ñu di ko xeex di ko xeex di ko xeex ba ñu am ni nit ki buy ñëw di bindu na indi carte d'identité wala carte boo nga xam dina firndeel ni kii mooy diw mooy ñëw di bindu mais sëñ bi wote mu ëpp solo dem retirer mille francs ci banque ba li nga mënula retirer 5000 francs ci banque ba waroo ko mën a wote di engagé avenir u réew mi donc ñuy xeex ba ñu am identification de l'électeur combat bu yàgg te metti contre le régime socialiste de l'époque contre Senghor avant Abdou Diouf ay bakkan tëdd ci ay nit tëdd ci kaso ay nit ñàkk ci seen liggéey ba ñu am loolu c'est comme la loi 79-02 du 29 janvier 79 la loi 78-02 du 29 janvier 78 bi nga xam ni moo wax ni booy def manifestation du demande d'autorisation mais déclaration de réunion ngay def loi boobu ñu dem en 1978 lañ ko voté assemblée nationale ci xeex boo nga xam PDS moo ko jiite woon ñu di ko xeex ba loi boobu tey ñu dugal ko ci biir constitution bi nekkatu loi mu mais mu nekk un point de la constitution loolu ñu doon xeex ay ati ati at Ablaye Wade ay ab Dansokho Ablaye Bathily à l'époque Landing Savané ñeneen ak ñeneen di ci xeex di ci xeex di ci xeex ñu nekk ay ndaw ànd ak ñoom ba ñu aboutir ci ba am ko tey loolu lañu ñu opposition bi nii nañ ko dajale def ko ci paket sànni on recommence à zéro ça veut quoi tey ku yor sa extrait de naissance wala lu mët mën nga dem voté ji gis nga bu ko gouvernement bi nag woon balay suba nga déggaat même opposition bi ni voilà. non inscrire la ñu wax inscription bi laay wax. parce que la base mooy inscription. waaw mais récépissé man nga man nga man nga inscrire xanaa dama lay wax loolu signifié wul lenn lu dul tey bu ñu ko nangu woon ëllëg dañu naan gouvernement bi fii la jaare ba sàcc ëllëg parce que maa ngi dégg effectivement démb benn déclaration Ousmane Sonko la buy wax ni Macky Sall bu dul 2012 mu su fi gagné benn élection. Hmm. élection yëpp dañ koy fabriquer techniquement. pour mën ko gagné. ma bëggoon nañ ñu leeral ma naka lañuy ñuy fabriquer élection techniquement man démb dem naa. di changer gi sama lieu de vote la ma fekk ci ay carte d'identité yoo nga xam ni defar nañ ko depuis 2017 seeni borom jëliwuñu ko foto naa ko dugal ko ci Facebook déggal ko ci réseau sociaux yi te foo dem ci Sénégal loolu moo fa am ci les sous-préfectures et les préfectures le combat mooy nit ñi nañu dem jëli seen carte yi dañ ko fay bàyyi nag bu élection jaar jotee ñu ni bon nombre d'inscrits par exemple un million nombre de votants six cent mille donc am na quatre cent mille wul ñu daal di ni 400000 yooyu opposition bi la gouvernement bi dafa bloqué seen i carte d'électeur ak seen carte d'identité alors que carte d'identité yaa ngi ci. kon yow àndoo ci primo votant yi inscrit ci liste électorale yi ak récépissé. mais loolu du waxu nit sax bu doon loolu ñun combat ba ñu doon mëne depuis des années pour expliquer amatul njariñ te duma nuñ ñu ci tëj nañ ñu ci dàq nañ ñu ci. ay nit dee nañ ci mais ñenn ñi dañuy wax ne président bëggul ndaw ñi inscrire. ndax euh, ndaw ñu bari ànduñoo ak moom ndax Sonko ne na 80 pour ñoom am nañu ay ay xibaar que ne 80 pour cent àndatuñoo ak président Macky Sall. <laughs> xam nga loolu yàgg nañ ko wax Sénégal 2019 bañ ciy def dañ ñëwoon Macky du bokk sa deuxième tour. léegi waxi la waxi la kon ay ndax la waxu Balla Pouye do la loolu waxu ay waxu caaxaan la non attends il faut être sérieux gis nga élection boo ci yeggool xamoo élection nu muy demee ñun tuuti expérience bi ñu am ci élection jël nañu nit utal ko carte wutal ko d' abord extrait de naissance yóbbu ko mu am extrait de naissance amu ko woon sax xay na ci njëlbéen mu wutal am extrait de naissance yóbbu ko mu wut carte d' identité. yóbbu ko mu mu inscrire yóbbu ko mu jëli carte d' électeur am yóbbu ko joué ay élection mu voté contre yow. Hmm. absolument donc taxaw naan ñii kii la ñu faral ñii kii yooyu du ça ne repose sur rien du tout. gis nga lii erreuru sénégalais yi les hommes politiques sénégalais mooy ñaar la benn bi defe nañ mañ nañ manipuler opinion bi. beneen bi ñu jàpp ni te bii moo indi bële jàpp ni ñu ëpp sénégalais xel alors que ñi nekkul ci parti benn ñu ëpp ñoo gën a bari fuuf ñi nga xam ne bokku ci benn parti politique seen kër la ñuy tëdd di déglu du xool bu wootee jotee ñu seet ki leen doy ñu dem voteel ko ñu ëpp ci réew mi ensuite ñooñu. ñu gën a bari ñu nekk ci terrain politique bi di wax ñooñu leen ëpp expérience ah, politique parce que dama lay wax koo nga xam ni mag Sall la dugal ci politique mënu fi am boo ñu jaay koo nga xam ne fonction moo la dugal ci politique mais du conviction mënoo am expérience boo ñu jaay mënoo am xam-xam boo ñu jaay koo nga xam bu ñu la xamee tey Macky Sall tax Sénégalais yi xam la ñun mënoo am expérience boo ñuy jaay. yow da nga jàpp ne Ousmane Sonko amul expérience ci élection. non man waxuma Ousmane Sonko ñëpp laa wax maanaam li may wax ku ci mbubb la bonk ku ko natt bu yam cee boor yow rek ca nga ah, bokk. d'accord léegi euh, moom euh, njiitul Pastef tamit déclaration bi wax na ne euh, li nga xam ne mooy commission yi. su dee commission yi tey par exemple tey euh, ñi nga xam ne ñoo bokk APR dañoo bëgg a ngar daajoo commission yi di bëgg fexe daal ba seen nit kese kese di bindu euh, ñu wax na ñu bloqué li nga xam ne mooy commission yi nee tamit euh, technique boobu ngay wax noonu mooy fi nga xam ne du fa majorité mu fexe ba transféré fa li nga xamante ni tey mooy ay électeurs ci gox yi nga xamante ni tey jàpp na ne favorable na ko loolu tamit yow lan moo ci saxalaat ndax Sénégal dafay toog waaye damay damay rêvé xam nga démb man wax naa la dem na euh, centre d'inscription bu yoof bi nekk sous préfecture bi ay la yëwét ci opposition que rek laa fekk mu am fa représentant moom donc toog nañ fa waxtaan tooñante lu yàgg avant da xëy na ñoom ñi ngi déglu émission moom donc laa fa gis gis ma fa beneen parti d'opposition ku ñëw it na ma def ngay def pièces yi ñu laaj moom ngay jox ñu inscrire nga jóg dem sa yoon. duñ la laaj foofu farag foofu bokk. non yow tam loolu loo ko laajee nit et puis nit ko boo ko laajee tey man mii tey nii xam nga Macky Sall la àndal. que man candidat la en 2024. candidat à l'élection présidentielle. élection municipale ku ma ko ku may voteel législative ku ko donc nit ki bu ñëwee di inscrire fexeel ba rek bu gis nga ki nga xam ne dafa ñëw bàyyi ko mu def li mu war a def. jour élection kenn mënul fexe ba manipuler nit dugal ko ci loo nga xam ne bëgg maintenant ay dañuy transférer ay nit fi jële fii yooyu c'est parce que ku koy wax rek ñàkk xam élection moo tax nga di ko wax mais attends man tey maa ngi doon voté xombal nekk fa dans le conseil municipal pendant vingt quatre ans def cinq ans dans le conseil régional de Thiès tey man maa génn sama vote voté tuma xombal ñëw di voté yoof parce que ña nekk xombal di fa xëcco maire ba tey ñëpp seen i bàyyi dañu nekkoon ci conseil municipal bi nga xam ne maa ci nekkoon adjoint maire di liggéey ak ñoom ñu di samay doom ak suma ay jarbaat du ma xëccoog ñoom tey génn gi ma fa génn may na ma mën leen a dajale ñoom. mais daf ko fa mës a am du tey la ko fa am du politique ko fa jox léegi. mais Antoine nag monsieur le ministre nag Antoine bi mu nekk ministre de l'intérieur presque lañ koy doon di xam Thiès na xombal euh, ci wàllum politique ci wàllum politique waajuram euh, la nag d' abord taxawaayu politique am dama am soxna xombal nag. monsieur le ministre <laughs> waaw dama ne dama ne taxawaayu politique ba léegi xaw ma ko parce que gisuma ko ci arène politique. Mhm. waaye li ngay wax ni doole la ñu fa am man Antoine dama koy wax ci rajo wax naa ko meeting bërki dem moo Ndiaye du benn yoon du ñaareel nee naa ko ñëwul ñu def la maire xombal parce que réunir nga toutes les conditions pour nekk maire munuma loolu sama objectif samay xarit ñoo fa nekk di xëccoo jàppale leen leen ñoo ñu mën a jël maire bi donc bu fekkee ne am na fa doole doole ja du politique moo ko may. lu mu ji askan wi la démb ak bërki démb mooy yar ak teggin d'abord parce que jox-jox defal nit matalewul mais am na lu matale mooy yëkk yar ak tegginte moom moo mës a wan population bi xam mënoo see génn politique nag monsieur le ministre. non dama ni dama ni. Antoine li muy def. lu muy def. ah Antoine li muy def dem euh, bu dara xewee dem foofu noonu euh, jël alalam di ko def ci ci askan bi di seeti ay nit ak yooyu yooyu politique la nag. waaw mais loolu man de ba ma ko xamee ba léegi yàlla wërsëgale ko muy liggéey. waxuma sax am responsable muy liggéey nekk magistra ba ma ko xamee te it nag bari na ñu koy ba ma ko xamee xamuñu ko ndax mën naa wax ne boo ko laajee dana la ko wax lu gën a bëri ci vacances dama daan nekk xombal sama kër la daan nekk kon xam naa Antoine baayam même chose di sama xarit di sama mbokk di sama lépp moom sama doom la sama jarbaat la donc am na lu ma xam ci moom dama ni ba mu tàmbalee nekk magistrat ba tey lu ko yàlla wërsëgale da ko bokk ak ay mbokkam. d'accord léegi nag euh, si Antoine waaw d'accord léegi si ndax ñu bari jàpp nañ ne warut a organiser élection yi euh, beneen bi tamit ñu baree bari wóoluwuñ ko rawatina opposition bi ak sa mbokk yi waa euh, ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Sall ndax Khalifa Sall ak Karim xam nga politique segam ni ñi bokk parti ñoo wóolontewul waxuma la koo bokkalul parti wala koo nga xam ne xamoo ci lu ma ne donc ay wóolonte amul xam nga li am solo mooy leen ni ci texte yi nañ ko appliquer te li ma gëm mooy élection ci Sénégal doomu aadama mënu ko sàcc ndax yow kenn mënu la tere am carte d'identité soo ko bëggee am am nga carte d'identité kenn mënu la tere inscrire inscrire nga ñi ngi joxe carte yi retiré nga sa carte d'électeur jour élection ñëw nga ci bureau de vote bi voté bureau vote ba ngay voté parti yépp fa am représentant état bi nekk fa Sénat nekk fa bu ñu voté ba ngoon jot bu ñu def dépouillement même presse bi Sénégal mooy réew moo nga xam ne presse bi mooy joxe résultat yi amul feneen bureau de vote bu nañu le bureau de vote temps bureau de vote temps bureau de vote lii moo fa am bu ñu paree dépouiller représentant partie bu nekk ñu jox la benn copie procès verbal signé caché ña fa toog ñëpp signé ko Sénat signé ko bu ñu ko signé wul valablatul bu amee kenn ku ci signé rek wul valablatul. ñu attends ñu dajale résultat yooyu jox la ko yow mii représenté Pastef ngeen dem la commission départementale représentant bu nekk ñëw indi say ñu calculer ko ba mu mat. ñu ne département sangam diw nangam la fi am musul am loolu musul am coow ci réew mi ñu yóbbu ko au niveau national représentant parti bu nekk ñëw ak sa PV bi nga jëlee ci département yi PV boobu ci département yi magistra moo koy jiite am ñaari assesseurs yu nekk ay magistrat parti yëpp teewe ko Sénat ko ñëpp signé ni département de Thiès département de Mbour département de Tivaouane ku nekk lii nga fa am ñu d'accord ci loolu indi ko au niveau national toog à la Cour ñu calculer ko ba mu ni kooj kenn ku nekk signé naka la fa sàcc mën a amee c'est pas possible. xam nga lu fi am ñii dañoo nekk ci rajo yi ñii nekk ci terrain bi loolu mooy différence bi. d'accord léegi euh, yan enjeu la élection locale yi am ndax boo xoolee tey euh, am na ay coppite mooy euh, liste ki nekk tête de liste. bu dee moo gagné moom mooy nekk maire directement te bu bu njëkk loolu amutoon yan enjeu la élection locale yi am. enjeu bi mooy mën na indi war sanction yu bari surtout du côté de la majorité. lu damay jël exemple boo jëlee fu mel tey pour joxe exemple boobu ndax def naa ne Médina bokk na ci commune yi fi ëpp ay kàngam ci ma parti majoritaire tey da ngay dem ñu ne Seydou Guèye nga fa ministre Cheikh Ba ma nga fa Pape Abdoulaye Seck ancien ministre de l' ma nga fa. Maïmouna Ndoye Seck Maïmouna Ndoye Seck ma nga fa. Eva Marie Coll Seck ma nga fa. Youssou Ndour ma fa mën nga lim fukki nit ak nangam yoo nga yu teg yoo nga xam ne kenn ku ci nekk tey war nga mën a doon maire Médina. ñu tànn ci x bugguma tudd kenn ñu ne xëy na moom la faral ñu tànn ci x ni diw mii mooy tedd liste kon xam nañ ni bu ñu gañee mooy doon maire am na candidat yu nga xam ne wax naa leen ko man leen su bëccëgee gars yi dañu ànd ak yow di campagne ba jant bi so waaye bu jant bi ñu woo seen nit ni leen waa ji rey leen ko de bu leen ànd ak moom parce que bu falaw ñu dee jàpp ni ka doon tëdd liste bu daanoo bu daanoo carrière politique am jeex ñoom seen carrière politique mën a baax mais loolu dafa am loo nga xam ne il faut que président jël ci responsabilité gis nga responsable boo mënti lim ci Sénégal am na fu mu dëkk am na baasam fu mu nekk ak ku mënti doon tête de responsable bu ci nekk dañ lay responsable de fa nga dëkk ca gox ba nga dëkk fa ngay voté yaa fay battre campagne yaay indi résultat ay joxe ko. bu ñu fa gañee ñu xam ne yow yaa fa organiser vote sanction yi. buñ fa buñ bu ñu gañee ñu xam ne yow yaa indi victoire kon yow jàpp nga ne euh, ndax ci benn bokk yaakaar bi ngay wax nii soo demoon tey Thiès. lu mel noonu da nga fa gis boo demoon Kolda tey da fay gis ay leaders yu bare bare bare ñoo nga fa nga demoon Ziguinchor boo demee Kaolack tamit euh, da koy gis foofu même Dakar gii nii Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba da ko fiy dégg mais euh, vote sanction boobu noonu jàpp nga ne man naa indil gàllankoor euh, benn bokk yaakaar bien sûr mën na ko indi mais xam nga luy saafara bi président yenn zone yi nga xam ne ay zone dangereuse difficile sensible président moo ko war a gérer boppam na mu koy géeree mooy dëkk boo ci dem ña ñu tuddee les personnalités marquantes di kilifa kàngam yoo fa nekk xam nañu leen kamu jiital na leen ni kii laa jiital ñamu jiitalut dina waxtaan ak ñoom. parce que mbooloo boo leen yoree dangay ngay wax ak ñoom. aussi léegi léegi Medina gi nga wax est-ce que bu jiitaloon Cheikh Ba dina gagné sama xalaat yaakaar naa ko. Ah. yaakaar naa ni Cheikh Ba est un très bon candidat pour la Médina mais attention ñii ma la wax ne dañ fa am lu ñu fay joué mais bu weesoo ñooñu communauté Layène dafa nekk foofu communauté Lébu dafa nekk foofu la famille de Amad Lamine Diène fa nekk. te ñooñu dafa nekk ay ay ay ay euh, kii yoo nga xam ni potentiel boo nga xam ni soo ko contrôle doo gañe bi dina xaw ma ku ñu àndal ku nekk ak nga àndal. d'accord mais mais jàpp naa ni euh, Ablaye Matar Diop am na fa rôle à su bëggee Macky Sall gañe gañe Medina du rek rôle bu yem ci déclaration rajo na mel ni moom dafa doon candidaa d'accord léegi Moussa Laye bi nekk ci laay ni am na un rôle à jouer foofu. bu bëggee Macky Sall gañe. bu dee bu dee Dakar entre euh, dakaar moom ñoo ngi wax Abdoulaye Diouf Sarr dafa bëgg mairie Dakar mais gars yi bari tamit ñoo ngi wax euh, ñoo ngi wax Amadou Ba yow lan mooy alors xaw ma lu Abdoulaye Diouf bëgg xaw ma lu Amadou bëgg man su ma doon choisir candidat Dakar Abdoulaye Diouf Sarr laay choisir pour des raisons très claires. dafay sax xarit wala salaam la. du question xarit du question xarit question réelle politique la xam nga luy loolu c'est-à-dire que tey pour nga doon maire ville de Dakar maanaam dafa mu looy toogaale maanaam base booy toogaale ci njëlbéen. te Ablaye Diouf saar bu amee fulla ak fayda ak fit mën na Dakar lu kenn mënul parce que yàlla def na potentiellement moom moo nekk ci littoral li ñu tuddee littoral bi mooy Ngor yoof Wakaam Cambérène Hann Mariste Yaraax ba une partie de Grand Yoff et des Parcelles Assainies bu fa amee taxawaay bi mu war a am kooku c'est une base naturelle boo nga xam du ko xëccoo ak kenn donc loolu man du ma am nit koo nga xam ne am na taxawaay boobu au plan politique

loolu man lu ma gëm la sama xam-xamu bopp la est-ce que loolu la Macky Sall xalaatam déet xaw ma ci dara mais man li ma xam man mooy loolu que tey bu fekkoon ne dañ Macky Sall dem na ba nekkatul dara ñaar ñi muy dese gëm naa ne kooku dina ci bokk dama lay wax moom bi keneen ki mooy kan parce que dafa am ma jaar ak moom muy Seydou Guèye dama nekk ministre Seydou Guèye nekkul ministre ma ñëw toog ak président Wade ni ko président dama bëggoon am Sénégal dafa am benn poste bu am UNESCO nga may ma ñu jox ko Seydou Guèye mun ma ban Seydou Gueye ma expliqué ko parce que aussi pour rappel keroog bi ñuy sargal Ablaye Wade di ko jox prix Houphouët-Boigny en 2006 à l'UNESCO Seydou Gueye man ak moom ñoo ànd ñu dem ci ma wax ko président Wade président Wade ni ma buñ ko dul gisee corruption j'ai pas de problème demal mu jox la CVM ma ñëw woo ko taaj ko taaj jabaram ànd ak sama jabar ñu ñëw HLM ma wax ko lii ma la wax nii Seydou Gueye ni ma c'est très gentil maa ngi lay remercier sama mag nga sama xarit nga mais dama ànd ak Macky Sall ñu bokk dugal suñu loxo ci pax lu pax mi tàng tàng bu génnewul du ma génne kon kooku war na ma position kon ñaar ñu gëm naa ni Macky Sall bu doon desee ñaari nit parce que fu ma jaar ak ñoom la xam ko ci. Ah, mais est-ce que tey Diouf Sarr bu ko président Macky Sall tabboon mu nekk candidat benn bokk yaakaar au niveau de Dakar yow jàpp nga ne dina gagné. moom laa gëm moo tax ma wax la lii ma la wax nii. pourquoi d'abord raison yi ma la jëkk a wax yépp dafa valable mais yeneen raison yi ci des nga mooy lan commune bu nekk ka nekk da nga war a Alioune Ndoye a gagné bu dee mooy candidat bi au plateau te jàpp naa ne mooy doon le candidat euh, au plateau keneen ak keneen feneen ak li Ousmane Tanor yàlla na ko yàlla jàpp ne Amadou mënul gagné parcelle. non j'ai pas dit que ko gagné mën na ko gagné pourquoi pas mën na ko gagné su ànd ak Moussa mais il faut reconnaître aussi beneen réalité ngi noonu kenn mënul gagné parcelle sans Moussa te est-ce que gis nga nangu jàpp nga ne Moussa Sy dina nangu euh, di jiital Amadou Ba. ah loolu xaw ma ndax jàpp nga ko yàgg. xaw ma ci dara. mais est-ce que Amadou Ba jàpp nga ne bu ñu ko investiroon Dakar dina gagné. parce que raison bi ma wax nii ak Diouf Sarr ku nekk boo gagné fa nga nekk. war na mën a gagné au niveau mais encore une pour man un candidat la ville dafay am lu muy toogaale mooy base boo nga ne base am la. Amadou Ba amul loolu amul base non j'ai amu ko mais je sais que base bi Abdoulaye am à Yoff Amadou Ba amu ko au euh, euh, Parcelles parce que Yoff au moins amul ñaari candidat amul ñaari leader. Dakar mais Dakar ak communauté Lébu bi aussi Diouf Sarr lañu àndal. boo xaw ah xaw ma. non seen déclaration. monsieur xam nga man lu ma xam du ma ko du ma ci du ma ci hésité waaye lu ma xamul nag xaw ma ko. Ah, accord du dëgg. waaw ah, d' accord jërëjëf euh, monsieur le ministre léegi nag ñu wax tuuti ci li nga xam ne mooy fédération sénégalaise bu football ak euh, coow li ni mu si bëree diggante Augustin euh, Senghor ak ki nga xamante ni mooy Madi Touré yow lan moo ci sa xalaat ci ci ci fédération sénégalaise bu xam nga coow loolu nga wax ñi bokkul ci football bee ko ci indi. ñi ci bokkut ñi ci bokkul ñoo ci indi coow mais les acteurs du football rek xamante nañu ku ne xam nga ki la man ku ne xam nga nu muy demee donc la preuve xam nga euh, dem nañ assemblée générale de la ligue professionnelle may féliciter le président Djibril Wade qui a été élu dem nañu démb assemblée générale euh, ligue amateur. amateur ñu féliciter Ablaye Sow. tey ñu war a dem ci assemblée générale la ligue en donc les acteurs xamante nañu. te it nag bu dëgg dee dëgg jàpp naa ne fédération bi dooleel ko moo gën di ko fi jëlee bu ñu bëggee ndamu Sénégal parce que dafa am date repère yoo xam ni ñu nekk ci football bi waruñu ko di fàtte xam nañ ko ñi ci nekkul ñooy bari parce que Caire 86 dañu amoon yaakaar lool Sénégal yëpp mobilisé wu parce que boobu toog nañ 18 ans demuñu Coupe d'Afrique xam nga léegi dem Coupe d'Afrique c'est banal. Mmh. mais booba lu rëy la woon. 18 ans demuñu Coupe d'Afrique bokkaan na ñu fi dugal trois buts. Sénégal qualifié dem Coupe d'Afrique ñëpp mobilisé même jaaykatu caaf yi génne seen xaalis joxe ñu dem ame fa déception 2092 euh, ñu organise la Coupe d'Afrique jëli Claude Leroy jox ko équipe bi Abdoulaye Matar Diop nekk ministre de la jeunesse et des sports ñu amee fa débâcle ñu gagné ñu. 2009 football sénégalais tas amatuloon football au Sénégal ñu créé le comité de normalisation du football avec les Diagne Ndiaye et autres. ba indi fédération bi comité boobu defee liggéeyam ba pare indi fédération ñu teg fédération bi jox ko ay mission fédération bi fexe ne ba ay école de football am ay institut am la petite catégorie du football ba suñu petite catégorie ñoom Sadio Mané dem nañ ba aux euh, Olympiades dem nañ ba jouer vraiment gagné fa de grandes équipes Sénégal di dem régulièrement Coupe d'Afrique di dem régulièrement Coupe du monde fédération bi fi nekk def na de sorte que amatuñ problème mu jouer un championnat équipe nationale amatuñu problème de regroupement amuñu problème de convocation ñu problème de prime balay équipe nationale dem danañu fa jiitu régler toutes les questions régler la question de transport lépp nekk en ordre stabilité am na ci au niveau de football donc ñu nekk à quelques mois de la coupe d'Afrique bi ñu war a jouer ji au Cameroun kon li am solo te ci diggante bi bu ñu fàtte ni Sénégal mosuloon bokk kaaf moo wadd wadd yàlla na ko yàlla yërëm dong moom mu doon mës a dégg muy dem kaaf di ñëw ay jamono yéen xale yi sax xëy na ñu gën ma xamatuñu kan mooy ma wadd ma wadd ma wadd tey ñu dem ba doomu Sénégal nekk premier vice président de la CAF kooku jàpp naa dañ ko war a dooleel mobiliser wu autour de sa personne loolu mooy intére Sénégal bu ñu ko defee en bloc bu ñu écarter kenn te bu kenn écarter sa bopp. bu ñu ko defee dem jëli coupe d' Afrique incha allahu rabbi dem coupe du monde am fa une belle prestation. mais on ne change pas une équipe qui gagne. doo dem ba a quelques mois. de de de d'une coupe d'Afrique ngay changer une fédération benn problème amul ci diggante. d'accord jërëjëf euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye euh, waxtu yi ma ngi jeex waaye ñu jeexale ko rek ak seen comité sargal boobu nga xamante ni doon ngeen sargal euh, doyen Abdoulaye jaw mu nekk loo xamante ni ñu bari ñoo ko rafetlu woon ndax Sénégal lañ fiy faral di nemmeeku mooy nit génn àdduna ñu koy dog di sargal seen xalaat boobu noonu fan la jógee. waaw xam nga xalaat moom foog mu jógee ci kenn en vérité mi ngi jóge seen rak bi jom Moustapha Fall. ñëw ñu waxtaan ci dem seeti suñu grand Moustapha Fall Thié mu jël affaire bi en main yàlla suturaal ñu aussi Sénégal yi yëpp ànd ci kon loolu jàngat bi ma ci def mooy ki ñu tànnoon doon ko sargal Sénégal yi yéene nañ ko ko muy lay Diaw ñaareel ba démarche bi maanaam doxalin bi Sénégal yi bëgg nañu ñu sargal nit bala muy génn àdduna loolu moo tax de bi ñu fay jógee ñëpp ni ñu comité bi bu doon ko tas ñu ne donc dañ koy maintenir incha allah mois de juillet bu jotati dina am ay doomu Sénégal yoo nga xam ne buñ ci yàlla yóbboo danañ leen sargal te mu wóor leen ni dañu koy def mu tegu ci yoon yàlla rek tax ñu du ko def ak dëgg. mais waa mais est-ce boole ngeen ci yeneen couche ku ci bëgg a bokk ñëw mën a bokk ci comité bi. waaw c'est-à-dire comme taxawal nañ comité bi dañoo dañuy xalaat ni dañu am benn comité consultatif. boo nga xam ne ay nit la yoo nga xam ne même bu ñu nekkul ci comité bi mën nañu xam ne ñii war nañ amal njariñ comité bi doon jëli leen indi leen ci. keneen ku ci bëgg a bokk boo ñu nee bëgg naa ci bokk ah ñu toog waxtaanee ko ci suñu biir bu ñu jàppee kii ku war a amal njariñ comité bi la ñu dugal la ci loolu amul problème. léegi euh, ndax am na ñeneen ñu ngeen xalaat après Ablaye Diaw. waaw am na ñu ñuy xalaat am na ñuy xalaat mais boo comme yëfu mbooloo la c'est vrai que sax xalaat bu demee bay génn ay nit di ko dégg di ko waxtaanee parce que ab dégg nañ même yaa ngi ma koy laaj démb ma na la mënu ma ci woon so mënu ma sore. waa ñu ne euh, maître Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf da ngeen leen a bëgg a euh, sargal ci seen ligne de programme la nekk nga ne doo ci sori lu tax. waaw li tax mënu ma ci sori mooy loo nga xam ne dañ koy waxtaanee même bu dee ni génn na ci presse bi aussi xëy na am na loo nga xam ne mënu ko ci sori man en tout cas loolu xalaat la boo nga xam ne rafetlu naa ko man ci sama jëmm bopp mais loolu engagé wul le comité ndax dafa am ñaari coup de nga xam ni. président Moustapha Fall Thiam mi mu ko wax keroog ni ma ñaari coup de fil yoo nga xam kenn waru ko fàtte mooy guddi gu Abdou Diouf jëlee téléphone am woo Abdoulaye Wade ni ko je te félicite tu as fekk boobu ñëpp defe ne Sénégal day tàkk réew mi daal di seet guy ak guddi gi Abdoulaye Wade jëlee téléphone am woo Macky Sall ni ko je te félicite parce que tu as gagné ñaari coup filio fil yooyu jar nañu ni ko fàttali à la génération d'aujourd'hui donc comité bi jëlagul une décision dans ce sens mais comme ni nga ko waxee. am na même ay ministres yoo nga xam ne dégg naa ñu wax ko ci rajo yi rafetlu ko bon man bokk naa ci comité bi euh, yaakaar naa ne bu ñu toogee waxtaan ci ba ñu jëlee décision définitive parce que proposé du yooyu rek am na yeneen ak yeneen ci biir yoo nga xam ne yu yu am solo la mais loo nga xam mën naa ci sori nañ jàpp ne ci fan yu gàtt comité bi dana réunir jàkkaarloo ak presse bi wax leen li ñuy def parce que li ci firnde keroog ci assemblée générale euh, ci bi ñu sargal Ablaye Diaw président dafa yebal Matar Ba mu ñëw représenté ko. mu teg tekki ni kontaan gi mu kontaan initiative bi tax na ba moom ci boppam dana jël même subvention jàppale comité bi li liggéey mais profiter ci occasion bi remercier tous les sénégalais yi nga xam ne jël nañ seen xaalis ñi jël seen oto ñi jël ay terrain def ko ci ci ci organisation boobu vraiment pour wane ne Ablaye Diop mi ñoon sargal jar na ko te ñeneen ñuy sargal ëllëg it bu li sib génnee dañuy xam ni jar nañ ko. d'accord jërëjëf euh, monsieur le ministre ñoo ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant di la gërëm encore une di jégalu ku ci dégg kàddu gu la naqari nga nga nga baal ñu ko. Mm-hmm. suñu yéene mooy wax lu baax mooy wax lu waaye nag wax li ñu gëm aussi parce que nag yàlla bind nañu mënuñu wax lu ñu gëmul. jërëjëf Euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye secrétaire général de la convergence libérale et patriotique euh, CLP ancien ministre moom la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot 15h jàpp 16h Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.